dama xool sama téléphone léegi gis Dame Mbodj nii man maay porter agenda LGBT Sénégal non non non. loolu laa gis. man maay porter agenda. yéen tey góor fii ci Sénégal. fi nga fële métti na di. waaw vraiment mais mais nag euh, on a beaucoup de respect pour toi. non non loolu laa gis waaw parce que ah, l'observateur parce que non parce que non une minute rek l'observateur ñoo ma l'observateur ñoo ma am na mm. ñetti fan ci ginnaaw. oui ah. lu ça. biñ ma woowee ñu ne ma bon lan nga xalaat ci bu Sénégal voté loi bi nga xam ni mooy criminaliser homosexualité. Mhm. ñu laaj ma yan mooy conséquence économiques yi. ak conséquences conséquences ci réew mi. ma wax ni loi bii buñ ko voté. Eh, nañ jàpp ni rek réew mi mi ngi ci liste rouge. <coughs> nañ jàpp ni aussi am na programme. yu bari yoo xam ne nii dañ daan soutenir Sénégal dañ koy arrêté loolu mooy dëgg. waaw ndax tey conditionnalité bi nga xam ni maanaam sart bi nga xam ni moom la tubaab yi teg ci bépp question xeetu ndimbal buy ñëw ci Sénégal. mooy ñu respecter li ñuy woowee tey les droits humains. xam nga li ñuy woowee droits humains mooy droit LGBT. loolu mooy dëgg bi. Mm-hmm. voilà voilà. d'ailleurs boo gisee sax suñu gouvernement yi ci affaire homosexuelle ñuy def ndànk parce que dañu xam ne léegi réew yi ëpp doole ci àdduna bi. Mm-hmm. dañu jël loolu teg ko comme condition pour ma leen a aider ci éducation lu bari. ma wax ci l'observateur ni leen loi bii di ñëw défi de civilisation la. ndax suñu réew ni ñu xalaatee diggante góor jigéen ak yooyu euh, kon défi de civilisation maanaam buñ ko buñ ko kiiyee relever nañ benn défi boo xam ni suñu civilisation la jëm. Mm-hmm. waaye en même temps aussi défi économique la. maanaam bu ñu ko relever dina am jeexital aussi suñu hmm. économie. Hmm. ma ni nag dañu war a am les moyens de notre de notre ambition. c'est-à-dire que dañu war fexe ba nga xam ni kenn dootuñu yi ci affaire góor jigéen. Hmm. loolu nag pour def ko il faut ñun ñu teel suñu bopp suñu koom-koom defaral ko suñu bopp. mais depuis lors ay oustaz Matar Sarr ay Dame Mbodj ay ku ne jël internet bi. ne Cheikh Yérim sekk mooy défendre agenda góor jigéen maanaam nit ñi dañoo liir wala mënuñoo liir wala li ñu def ñoo ko tey wala lan Yérim je te wala boog réew mi wala boog réew mi xanaa kenn sañu la man man man déjà man damaa waxul man l'observateur ñoo ma woo pour ma analyser ma wax li nga xam ne mooy xew ci ginnaaw loi bi man mësuma wax ni damaa pour wala damaa contre euh, criminalisation mais Cheikh Yérim mais nit ñi mais nit ñi aussi nañu na Sénégal nañu xaw a maandu tuuti nag. waaw ah man duma góor jigéen. défendre ma agenda góor jigéen. liñ ma laaj laaj ñu ma sax ba xam. nangu naa wala contre kenn laaj ñu ma ko. mais on n'a pas à te demander. voilà non Yérim dafa am loo xamante ne leeral deer baal ma de ah. bàyyi mu leeral non mais c'est aussi la preuve que je ne suis pas aussi dictateur que tu le dis. voilà voilà dëgg la c'est un hors sujet mais je te laisse je te laisse faire hors sujet bi mais dama ko gis.